coow lu juddu woon ci diggante ki nga xamante ni moo fi doon woote ab prophète foofu la ci diwaanu Kolda ni kiy démb mbir mi am na loo xam ne yees na ci wàllu wi ni mel mu di ndaw ya nga xam ne ñoom lañ jàpp ni dafa doon sikk ak ñoom wala ay détournement bi ñu koy dal di toppee bokkoon ci li nga xamante ni moo wundu ci mbir moomu ba ñu daloon ko denc ci ndungu siin ni ki nag ñi nga xamante ñoo di wàllu observateur yi ne ni lu wees li nga xam ne moo di mbir bokk na ci xale jigéen yi nga xamante ni ñoom la seen ay wajur di toppee ki nga xamante ni moo fi doon woote ab prophète foofu la ci diwaanu Kolda te ñu yóbbu woon leen ngir rek di leen saytuwaat tam gën a xool lépp loo xam ne moo tukkee ci seen wàllum doxalin amee leneen loo xam ne daal dina judduwaat ci wàllu lu bees mu dina mujj nañ leen bàyyi ñu daal rek dellu si waat dellu ji waat seen kër mu di mbir moo xamante ni bokk na ci daanaka lu gën a yëngal boobule dëkk niki démb. mu mel ni ab soulagement moom la dal di nekk wala li nga xam ne moo di akum péex mu juddu foofule ci dëkk boobule ndaxte Saare Ngaay démb daal ñi nga xam ne ñoo di way juru xale yi mbégte gu mat sëkk lañu daal di àndal ndax seen doom yi nga ci ni jot nañoo ñibbisi ginnaaw boo xamante ni daanaka jot nañ leen a déglu waaye tam saytu leen psychologiquement ngir xool seen xel ak la nga xam ne jot nañ koo dund ban tolluwaay lañ ci daal di am bokk na ci tamit ñi nga xamante ni daanaka ab xale bu góor la bokk ci ñi nga xamante ni daanaka ñoom lañu daal di téye ngir rek xool la nga xamante ni moo ci bokk benn xale bu jigéen moom tam daal dina yëy yàbbi waaye tamit xamal ci kanam ñi nga xamante ni ñoo ko doon déglu ne musul am ay relation intime wala rapport ak nga xamante ni moo di jëmm jooju lay dañu daal di ko tuumaal ci wàllum pédophilie ak yeneen ak détournement de mineur ak yeneen ak yeneen moom mi nga xam ne moo la ñu daal di duppe wala bàkkee mbàkke ruxu laayi mbir mi daal fu mu toll ni am na ci leen loo xam ne daal na ci juddu ndax lu ko waral bokk na ci ne bu fekkente ni ñenn ci maanaam way juru ñi nga xamante ñoo di xale yi ñu daloon di téye ngir teewlu leen wala dal leen topp psychologiquement ngir xool afan na seen xel daal di tollaale tukkee ci jafe-jafe yi ñu jot dundu bokk na ci ñeenti jigéen ak juróom-benni góor ñi nga xamante ni ci mbir moomu la jot ñuy yàbbi ñenn ñi am ñoo xam ne dëggal nañu wala sax daal nañu dàqandi toppee fi nga xamante ni ñu ko amal tukkee ci nga xamante ni moo di Daouda Ba ñi gën koo xam maanaam wala Arias Babalaba wala Malabe. moom mi nga xamante ni daanaka toppee fi ñu ko doon amal tax nañu teewuñ ko ci ndungu siin ba lépp loo xam ne daan dina jukki ci boobule dossier ña ko jàppoon doo ci amal ab l'enquête Baba Malabe wala Malado ak fu mu toll ni daanaka ñett ci ay proches wala ñi nga xamante ni ñoo ko daan di jege bu baax a baax nekk tamit ñoo xamante ni daan nañuy gëstu bu baax a baax ci mbir mi ni mel liñ ko toppee bokk na ci viol contre une mineure de 13 ans maanaam bu ndaw am lu toll ci fukki at ak ñett. waaye tamit consommation de mariage par fraude maanaam takk nit boo xamante ni dëppwul ak anam yi nga xam ne noonu lañ ko santaane ak yeneen yoo xamante ni daanaka dañoo jàpp ne leen doon mitteel leen fitnaal ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi fa woon ci daaram yooyu lay daal di fa nekkoon. mu mel daal démb ñu bare bari ci ñi nga xam ne ñoo di way juri ga xale yi ñu yóbbu woon daleen daleen entretenir ngir xoolaat li nga xamante ni daanaka moo di seen tollay fu mu toll nii gone yi daal dañoo ñibbi moom Baaba Malawe mi nga xam ne juróom nañ koo jàpp. ak fu mu toll nii mu ngi wàlle ci loxo ñi nga xamante ni ñoo ko téye woon di xaarandi xamante ni na ko woote ñu bëree bëri doon ci dellu si waat di ab yi di xool lan a mën a wundu ak tamit xam ne jot nañ ko ci amal lañ ci mënti doon ab ngi ko dal di tegaande di xool fan la wane di mu jékki gëtam waaye ko mooy daal moom moomu li ñu ngi koy toppee ci mbirum mœurs mu di affaire bokk na yu ñu jàpp ne moom la dal di def ak tamit takk ak xale boo xam ne dëppuwul ak yoon loolu di ay toppe fi nga xamante ni moom lañ koy daldi rek maanaam teg ci ndoddum di xaaral xaarandi fan la wanent di mu jékki gëtam ëttukkee ci boobu les dossier dooli ci saare ngaay ak ki li nga xamante ni moo di Daouda Ba nekk alias Baba Malado wala Baba Malabe